asalaamaaleykum ko internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan ci chaîne bi euh, ñoo ngi leen ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ca ñu koy njëkk gis wéy leen di like wéy leen di commenter également di partager vidéo bi du am solo la gaay euh, ñu ñëw ci Leroy Sané donc li mu wax ci Sénégal donc ak hommage bi nga xamante ne rendre na ko papam mais laata ñu ñëw ci loolu dañuy dem ci page publicitaire bi te ñëwaat. da nga am ay jafe-jafe ci sa wàllu dundu jàngoro rab ak cat ba ci sax tëju ci sa wàllu wërsëg lii yëpp mën na la gàllankoor ba tax loo yaakaar rek mu tas waaye nag bul xàddi benn yoon ndax xam-xam moom fa mu nekkoon ba tey jugu fa dawal gaaw seeti sëriñ Mohamed Jaxate yàlla may na ko te xam-xamam kenn naatable wu ñi am jafe-jafe néew kàttan ci wàllu sëy sëriñ Mohamed Jaxate andi na leen ci ay garab yu baax te wóor gaaw lool ci paj mi ngir jokkoo ak moom wooteel ci numéro téléphone bi 78 201 82 44 ak sëriñ Mohamed Jaxate ñëpp nangu nañ xam ci listixaar ak ñaan waaw sama gars yi comme ni ma leen ko waxee rek dañuy ñëw ci Leroy Sané li mu wax euh, ci euh, Sénégal muy pays d'origine am euh, fi nga xamante ne fi la papam bàyyeekoo muy Souleymane Sané l'ancien international sénégalais bi nga xamante ne lu ne def na ko ci football Sénégal macha allah Leroy Sané nag gisoon nañ ko jamono yi passé problème am ak Sadio Mané ñii naan daf ko insulté de noir de merde ñii di wax. Lila, la ko wax ñi lu ne ay rumeur yu ne nga dégg mais moom d'après moom Leroy Sané affirmé na que ne euh, insulté wul Sadio Mané euh, de raciste donc moom nag ni euh, wax naan bugul pays d'origine am Sénégal bugul d'Afrique. Afrique moom li mu wax mooy que je suis né et j'ai grandi en Allemagne donc nee na Allemagne la juddoo mais ay racines am fii la ci Sénégal et dafa fier ci ay origine dafa fier euh, ci fi nga xamante euh, moy euh, limu bayeko fi ci Afrique fi ci Sénégal nee lolo wara sax mu daal tetu tatoué ci yaramam muy carte Sénégal ak carte Afrique donc kon da ngay xamné ne vraiment amna attachement bo xamantene amna ko ci Sénégal ak Afrique nee nak tatouage bi daf ko def ngir rendre hommage papam en tout cas c'est important pour ñu def ci vidéo wax ko parce que boo gisee lu baax da nga koy wax comme boo gisee lu bon ni nga koy waxee euh, kon mbokk yi wéy leen di like wéy leen di commenter jaa ngeen jëf.